Macky Sall def na sortie euh, mardi bi di passé di wax euh, par rapport à inondation noo jàngatee euh, sortie kii di président Macky Sall balaa may wax ci sortie président Macky Sall d'abord damay daal di quand même masawu tous les Sénégalais qui sont mm-hmm. victimes de ces inondations la et particulièrement ñi nga xamante ni ñàkk nañu seeni mbokk mm-hmm. voilà et puis di tey jii nii y a beaucoup de yu ñàkk seeni kër entre guillemets parce que mënuñu dëkk seeni kër euh, ñàkk seeni bagages xamuñu nu ñuy def état bi abandonné leen à eux-mêmes parce que politique état bi dinaa ci ñëwaat plan bi mu euh, lancé woon li jëm ci mbirum mbënn mi dafa échoué totalement donc euh, j'ai pour tous ces Sénégalais là et actuellement à l'heure ou je vous parle sans tambour ni trompette Euh, fépp un peu partout Y'en a marre yi ñu ngi mobiliser wu ci gox-goxaan yi mhm. euh, dans le cadre d'une chaîne de solidarité di jàppalante euh, du mieux que nous pouvons mhm. voilà donc merci yaa ngi wax échec euh, par rapport ak état bu Sénégal ñenn ñi jàpp ne sorti kii di euh, président Macky Sall da loon jéem a rek dédouané wu par rapport ak seen responsabilité yaa ngi wax plan décennal bi nga xam ne euh, tolloon na si 750 milliards de francs CFA ñii di wax 767 milliards de francs CFA tey jii ñu woon naka dem si plan OCSEC boo xam ne mu ngi ko tëgg si 10 millions 10 milliards de francs fa ban lecture nga def non tu sais euh, il faut il faut que ñu dellu un peu ci histoire. Mhm. dañuy dellu ci histoire euh, remonter encore à 2012 président Macky Sall bi ko sénégalais yi tànnee ñu fal ko mu doon président bokk na ci question yi nga xamante ni soxaloon na leen torop mooy euh, problématique inondation yi et que ñu gis bi mu faloo en mars euh, 2012 euh, ci août 2012 juillet août août mu am inondation yu garaaw yooyu. ah ci banlieue bi euh, ñu gis euh, euh, ni mu méttee woon et à l'époque je me rappelle mouvement Y en a Euh, dañu arrêté woon lépp lu ñuy def comme activité ñu ne quand même priorité signalé na boppam et que ñu jamono jooju ñu jéemoon xool yenn édifice public yi en tant que citoyen nan lañ mënee ñëw euh, renforcer état bi à travers ay hôpitaux Philippe Maguilène Senghor bi ñu bi ñu bi ñu sauvé woon ay euh, beneen hôpital bu Wakam bi dem un peu partout dans la banlieue engagé citoyen yi à ce ñu def investissement humain Euh, ensemble mais en même temps dañu joxoñoon état mm. régime Macky Sall bi nga xamante ni mu ngi doon soog a ñëw ñu ne ko il faut quand même que euh, lii nii nga nga taxaw ci président Macky Sall yow mii ñuy soog a fal euh, ndax sénégalais yi amoon na yaakaar bi ñu am ci yow et surtout ci mbirum mbënd mi priorité yi mu ngi fii et il faut que mu def ay moom il faut nga def ay choix yu am solo yuy wone ni lii priorité la et on se rappelle à l'époque ci la jóge voyage je pense juste à l'aéroport ou quelque comme ça mu annoncé Euh, ni déjà dañuy dissoudre Sénat mhm. ah yenn institutions yi nga xam ne dañ jàppoon ni c'est des institutions budgétivores mhm. dissoudre leen pour que ñu mën a économiser xaalis euh, bi nga xamante ni moo doonoon moo waroon doon base plan bi mu annoncé après muy plan décennal de lutte contre les inondations mhm. ñu annoncé ci euh, sept cent cinquante milliards au bout de huit ans au bout de huit ans il a fallu d'une journée d'un week-end de pluie encore que à Dakar Euh, c'est pas des pluies comme li tubaab yi di naan des pluies diluviennes. du yenn euh, pluie yi nga xam ne exceptionnelle aussi. Euh, exceptionnelle oui mais c'est jamais yenn pluie yu ñuy gis par exemple ci ñun ñu jógee zone Casamance xam nañu Casamance da ngay dem 3 euh, 4 cinq jours ay pluies yu mag non stop la mais encore que xam nañ taw na mais sur un week on a vu week bi euh, sur un week on a vu euh, inondation yi ni mu ñëwaatee. ah euh, sénégalais yi nekk ci njàkkare sénégalais yi nekk ci biir ndox mi mu am ay bakkan yu ci rot et euh, la question qui question bi sénégalais yi li ëpp ci sénégalais yi di posé mooy euh, suñu 750 milliards yi nga mm-hmm. xamante ni président Macky Sall campagne na ko élection yu mujjee vous avez vu les vidéos qui mm-hmm. sont passées Euh, fépp fu mu dem il laa dit écoutez bi may ñëw dem fi fekk inondation yi ma lancé plan décennal lu 750 milliards tey inondation yi c'est réglé mm-hmm. et c'est pourquoi man en fait pour ironiser j'ai dit mais 750 milliards yi peut-être que inondation wu Madagascar wala bu Cameroun wala bu Congo la réglé mais pas les inondations du Sénégal mm-hmm. parce que inondation wu Sénégal yi ñu ngi nii Euh, daaw tawul woon yenn taw yi et tout mais ren il a fallu d'un week-end de pluie pour que ñu gis ni le travail n'a pas été fait ça c'est grave ci yenn réew yi gouvernement démissionné na ndax lii mhm. parce que tu peux pas injecter autant de ressources sur un programme mhm. pour la sécurité des Sénégalais parce qu'il s'agit de la sécurité gis nañ ne ay bakkan rot na ci mhm. et que nga lajj ci nii kenn xamul koppar googu nu mu demee ñenn ñi ñu ngi naan bon il a annoncé comme ça mais finalement ndekete ils ont mis je sais pas quarante huit milliards mais le président Macky parle aussi de dérèglement climatique ñu mun ko que le ñëpp xam nañ les changements climatiques climatique ñëpp xam nañ les dérèglements climatiques mais ci bépp réew bi respecté wu dirigeants yi dans leur politique ils prennent en compte ces aspects là man personnellement par ailleurs sama liggéey dama liggéey naa lu bëri ci mbirum changement climatique ak yooyu depuis à huit ans dix ans derrière en tant que communicant d'une organisation produire naa ci un film sax quoi donc je sais de quoi je parle donc loolu c'est du fatalisme et à la limite même c'est insulter les Sénégalais que de dire que oui dérèglement climatique il faut vraiment nul comme État pour que li xew nii échec bi nga wekk ko ci mbirum dérèglement climatique ci mbirum jur gi c'est-à-dire les naissances on non c'est vraiment manquer de respect aux Sénégalais que de donner ces ces motifs-là ce qu'il y a c'est que on a un État qui a des limites qui a échoué sur une politique euh, qui a englouti autant de milliards sénégalais yi yaakaaroon ni problème bi réglé wu na et que tey jii nii qu'est-ce qui se passe on dit ouais il faut dix milliards de plus li sept cent cinquante milliards yu ñu annoncé réglé wul dix milliards yi ça va permettre peut-être à renforcer sapeur pompier yi ak yooyu ñu génnee ndox ci yenn gox-goxaan yi trois milliards d'aide alimentaire tey on parle de tout le Sénégal tout le Sénégal bi nga xamante ni que ce soit à Dakar et un peu partout. ci yenn kii c'est peu. mais mais non sa ça peut pas régler ça malheureusement ça va être encore du saupoudrage mënul régler problème et puis tey y a des Sénégalais amuñu sax fu ñu ñooñu tey en fait ils peuvent mais je vois des images de pères de famille yuy jooy face en fait à à leur désarroi ak seen impuissance ci situation bi ñuy dund mënuñ nekk sax seen kër ñooñu boo leen joxee ceeb comment ils font en fait l'État au dû pour une fois être sérieux sur cette question-là en injectant toutes les ressources yuñ ci annoncé et que mu am un travail sérieux bi nga xamante ne dañ ko ciy def parce que c'est possible quoi. Mhm. parce que 750 milliards de francs CFA huit ans après population bi nekk euh, ba tey euh, sous les eaux. Mhm. ñuy annoncé trois euh, dix milliards de francs CFA est-ce que tey jotul ñu ubbi benn enquête parlementaire pour situer les responsabilités. mais loolu il faut le dire c'est ci suñu réew. des mouvements comme Y en a marre. se mm-hmm. sont beaucoup battus pour que Euh, réforme institutionnelle justement loolu aussi beneen pàcc la bi nga xamante ni Macky sàll annoncé na ko annoncé woon na ko fi en grande pompe mu doonoon une exigence forte bu sénégalais yi posé woon biñ koy fal c'est-à-dire bu ñëwee na fexe ba suñuy institution ñu réformer leen ba nga xamante ni ñu am ay institution yu forte à côté de l'exécutif ñu am un pouvoir législatif bu fort ñu am benn pouvoir judiciaire bu fort ñu dépolitiser en fait l'administration sénégalaise pour que ce soit une au service de tous les Sénégalais. Mm-hmm. mais tey cette assemblée là est-ce que tu peux attendre de cette assemblée là que mu lancer commission d'enquête parlementaire bu sérieuse bi nga xamante ni day situer responsabilité yi et que mu def li war en dans son rôle de contrôle de l'action de l'exécutif pour man c'est de l'utopie li mën a nekk mooy que c'est les citoyens qui doivent de façon populaire mettre une pression sur l'État pour que quand même ces ressources là bi nga xamante ni ñun suñuy ressources la en tant que sénégalais mm-hmm. bu dee c'est des prêts qu'ils ont fait c'est nous qui allons payer c'est nos fils qui euh, vont payer c'est nos petits-fils qui vont payer ñun sénégalais ñoo war a am fulla ak fayda ne Macky Sall ak gouvernement am lii nga ne woon réglé nga ko yaa je sais pas combien d'années derrière mu ngi nii fii mm-hmm. donc il faut que tu nous dises xaalis bi ñu ko jagleel fan la dugg mm-hmm. mais pour man euh, comme sur beaucoup d'autres questions njàpp man ma conviction c'est que il faut que sénégalais yi yi ñoo a jël seen responsabilité parce que encore une fois loolu aussi je pense que euh, bu ñu tolloo fii ci aussi parfois ñun aussi dañuy nelaw en tant que citoyen ah dañuy nelaw on ne fait pas le suivi qu'il faut du ñu du ñu saytu du ñu topp du ñu exigeant ñu participer à l'éclosion et l'entretien d'une opinion publique forte ñenn ñi nga xamante ni dañuy jóg di ci nekk certains ils pensent que euh, il faut déléguer leur engagement citoyen et ça aussi c'est un problème mm cest c'est-à-dire il faut que citoyens yi aussi ñu xam ni mm-hmm. ci réew yu ñu nekk du ay institution mooy régler yenn yi mais que c'est les citoyens qui doivent se mobiliser ñu xam ni face à un état citoyen yu déterminé yu engagé mais attends euh, Macky Sall il pourra rien contre Sénégal debout avec des citoyens prêt à ce que 750 milliards yi ñu xam fan la dugg. ndax Madagascar la dem justement wala Cameroun wala Congo pour régler là-bas des inondations mais pas le Sénégal. Mhm. si discours yi Macky Sall aussi euh, dafa le président Macky Sall euh, mun nañ si fort mel comme muy euh, accuser wala sa bëgg a dédouaner jël la responsabilité teg ko si population ba parce que mun naan population yi ñoom ñooy dëkk dans des zones non non non est-ce que population yooyu ñooy jox seen bopp. ay mën a dëkk. premièrement loolu c' la responsabilité de l' état. Mmh. moom mooy encadre lotissement yi ak yooyu c' est l' état qui qui encadre tout ça. Mmh. encore une fois quand l' état fait faillite quand l' état est faible quand l' état n' pas organisé dans ses missions. ci question lotissement yi ñuy joxe à tout va. Mm-hmm. am na ay zones yi nga xamante ni c'est des espaces non def non indi non édificandi. Mm-hmm. nga xaman kenn waru fa dëkk mais est-ce que nit ñi dañuy xëy rek dem dëkki non. dañu leen di jox ay bail wala ay titre foncier ay yooyu fan lay jógee y a les impôts et domaines y yooyu loolu d'abord y a la responsabilité de l'État dans l'attribution de titres foncier de di lotissement yi ñuy def il faut des études préalables ak yooyu et de façon organisée ñu xam état fan la mën a permettre au Sénégalais ñu dëkk ak fan la ñu mënul dëkk loolu c'est l'État qui l'organise loolu c'est une première chose mm. mais l'autre chose man fi may quand même euh, euh yoon aussi ah euh, bu attends mënuñu aussi jël ay canaux yi nga xamante ni dafay war a évacuer mhm. les eaux de pluie wala yand yi ngay dem di ci dugal ay ay médd mhm. saxaar mu dee tu vas tu mets mets ça dans un canal mais bien sûr que dafay boucher le peu d'infrastructure qu'on a mhm. l'État a l'État a échoué ci en fait son plan décennal mais tey le peu qu'on a comme infrastructure li jëm ci ay canaux ak yooyu mais ñun citoyens ñoo ciy xëpp mbalit et ça aussi c'est de notre responsabilité mmh. on ne peut pas accepter que l'État se défausse sur les citoyens parce que le gros de la responsabilité état moom moo ko moom à travers plan yi muy teg à travers aussi sur la question des lotissements attribution wu lotissement yi loo yi les bails ak yooyu et puis en même temps sur le suivi mais oui ñun citoyen aussi on mettra mille milliards sur les infrastructures ay canaux buntu kër yëpp mu am canal mais bu dee ku nekk da ngay xëy ñëw sa buntu kër aussi sa xar mu dee nga sànni ko fa ah loolu aussi ñun aussi il faut que ñu am ñu am sa cette responsabilité citoyenne la mm -hmm. ce sens du civisme aussi ah mm -hmm. et, et aussi il faut le dire Euh, ñu waxante ko ñun en tant que citoyen loolu voilà. ak agent yi nga xam ne ñooy liggéeyee CADAS di liggéey impôt et domaine nga xam ne ñooy ñoom ñooy joxe euh, bàyyi euh, est-ce que tey jotul yéen ngeen orienté seen xeex par rapport ak ñooñu parce que mun nañu wax président de la République il peut pas tout gérer aussi. oui mais l'État est organisé l'État est organisé l'État est organisé l'État la première responsabilité d'organiser cela maintenant oui ñun da yu jëm ci mbënd mi ak lotissement yi sur les espaces non édificants yi ak yooyu mais ñun ñu ngi xeex boobu ba tey ci attribution terre yi dans notre pays. mais quand le sur directeur de l'ONAS sort pour dire que la population sénégalaise mu arrêté Diouf ngir euh, euh, problème inondation jeex fii au niveau du Sénégal ça c'est manquer le respect aux Sénégalais. que c'est c'est de l'incompétence caractérisée c'est quelqu'un qui a été mis quelque part et il n'a pas les compétences pour diriger ce qu'il dirige je pense que kooku on n'a même pas besoin de la qui aurait dû être faite par Macky Sall, c'est de le relever de ses fonctions et de mettre un autre Sénégalais qui est capable de travailler et de faire avancer les choses. Parce que mhm. loolu la aussi Eh, ma Sall la ñu fal si moom la ñu jox les pleins pouvoirs et le pouvoir discrétionnaire pour nommer des Sénégalais les meilleurs d'entre nous ou en tout cas ceux qui ont les meilleures capacités aux différents postes pour que mu teg leen fa quand tu prends quelqu'un comme ça tu lui donnes un poste aussi important sur une question qui suscite autant de préoccupations venant des citoyens mu lajj ci et que mu ñëw taxaw di wax waxu ku daanu saret mais kooku on n'a rien à lui répondre dinañ continuer di xeex dangay xool même ci par exemple sur la question du littoral yàgg nañu di kii y a des espaces yi nga xamante ni c'est non édificandi waruñ ko jël waruñu ko jël euh, di ko jox à des citoyens particuliers ñu ciy tabax yi nga xamante ni euh, du sénégalais yëpp ñoo ci war a jëriñu non dafa war a am ay installation yi nga xamante ni dañuy souple sénégalais yëpp ñu bokk ci yem euh, ci plage bi ci kiweek yooyu mais gis nañ ce qui se passe y a un combat depuis non au mur ñu jàpp ñu ci tëg ñu ci garde à vue continuer nañ di ci xeex encore avec ce qui Sénégal question wu foncier ñu ngi ci mais oui sur la question des inondations la aussi mm-hmm. ak lotissement yi ñu def parfois attribué à des Sénégalais des espaces ñu dem ñu nekk fa dëkk fa sur des espaces yi nga xam c'est des bas-fonds parfois ay espaces yi nga xamante ni yoonu ndox la mm-hmm. ay espaces yi nga xamante ni ñoom sax sur les études sur les études techniques de l'État xam nañu fii kenn waru fi dëkk mais on mais des gens là-bas et je pense que loolu ñun war nañ ci gën a engagé wu ñaax autorités yi pour que ñu góor góorlu ci loolu parce que après c'est des citoyens qu'on expose ah c'est des citoyens et gis nañu li mu jur ci yenn zone yu bëri yi nga xamante ni nit ñi waruñu fa woon dëkk ñu ngi fa dëkk et bu tawee nii ñu inondé parce que yoonu ndox la parce que bas la et tout mm-hmm. mais au-delà de ça des gens habitent ci ay zones yi nga xamante ni war nañ fa mën a dëkk mais l'État n'a pas mis en place ay système de d'évacuation des eaux système d'assainissement comme dans des pays qui se respectent et ça c'est l'échec de l'État et il faut le dire Macky et son gouvernement ont échoué sur ce plan décennal là et ils doivent des comptes aux Sénégalais encore une fois mm parle de problème euh, mu ngi wax euh, mbirum euh, wàllum dérèglement climatique mais population na ne aussi terre bi dafa impacté wu par rapport ak euh, mbirum inondation bi. oui boo demee ci zone Pikine bi no frères qui sont là-bas ñoom euh, Latif ak ñoom Aro l'esprit y'en a marre qui mais ñoom seen problème mooy euh, justement terre bi. les infrastructures terre bi bi ñu kii foofu mais ils n'ont pas ils n'ont pas en fait ils n'ont pas euh, sóoraale wu ñu système d'évacuation des eaux ki fa gaañu foofu c'est là en fait mais est-ce que terre boo xam coûté na mille milliards. mais c'est euh, pas euh, sérieux c'est pas sérieux et à la limite mais vraiment le Sénégal ne mérite pas des personnes comme ça en fait des personnes aussi inapte à gérer en fait la chose publique tu peux pas mettre autant de milliards sur des infrastructures comme ça lu jëm ci terre ak yeneen ak yeneen et que doo prévoir des systèmes yu koy accompagner pour euh, le évacuer les ak yooyu mhm. ba inondation di am muy muy muy nit ñi di fa muy muy inondé wu et puis ba muy am ay mort d'homme mhm. dama la ne ni njàpp bu doon ci yenn réew yi la pression serait tellement forte que le gouvernement aurait démissionné parce que c'est grave ce qui se passe le... mais on a le sentiment que les Sénégalais en fait ils... on s'indigne mais comment est-ce qu'on mm-hmm. dañuy toog encore une fois nga nekk ci internet bi di casse nga foog ni njàpp en tant que journaliste moom rek moo war a woo état bi di leen truc nga foog ni Y'en a marre ñoom rek a war a kaas nga foog ni Guy Marius Sagna moo war a jël xeexu Sénégal bi yëpp teg ko ci boppam. Mm-hmm. nga toog fële lal sa pliant di ko naa dinaa nii la waroon def ak na la waroon def il faut que les citoyens au-delà de l'indignation comme ça qui est qui est passif que les gens ils ils ils s'indignent davantage que les gens ils s'organisent davantage et que qu'on puisse participer à ce que ñu am opinion publique bu forte encore une fois. buñ nee Y'en a marre dégguñu leen ci kii lii déggu mais Y'en a marre ne peut pas partout. Mm-hmm. Guy Marius Sagna et le FRAPP ne peuvent pas partout. les gilets rouges ne peuvent partout il faut que Sénégal un peu partout ci gox-goxaan yi et c' était le sens de ñun suñu programme dox ak sa gox bi. Mm-hmm. et ça commence à payer parce que un peu partout ci yenn zone yu ñu implanté woon da ngay dem ci zone ñoom Habib Safen ci zone Mbour bi mais c' est des citoyens qui sont très conscients qui n'ont pas fait des études supérieures mais qui ont une conscience euh, nu mu tuddati citoyenne bi nga xamante ni bul sax comprendre. Mm-hmm. nga dem un peu partout a à on a maintenant ñoom Saliou bi fa nekk avec un vrai leadership sur des questions de gouvernance locale bi di bokk ci mbir yi di di di un peu partout on a mais loolu du doy il faut que sénégalais yi ñu gën di farlu ci mbirum gouvernance au niveau local dans leur mairie seeni rapport ak seeni autorité locale ñuy gën di xool xam ni budget municipal buñ koy voté am ngeen en tant que citoyen am ngeen la possibilité de pouvoir participer à l'élaboration des priorités une fois que ñu valider le budget municipal am ngeen possibilité wu euh, topp contrôle exécution budgétaire bi et ngeen di woo ñi ngeen di fal ñuy rendre compte il faut que ñu yegg ci loolu et j'ai l'habitude de dire que on a l'habitude de dire que le président des États-Unis c'est l'homme le, le président le plus puissant au monde mm -hmm. moi je dis qu'il n'en demeure pas moins que c'est le président le moins libre au monde mm parce que dangay dem États-Unis fépp citoyens américain yi ñuy cotiser ñu ñu koy jox parfois à travers euh, l'aide publique à travers comment on appelle ça encore euh, l'aide américaine USAID mm-hmm. l'USAID la qui vient un partout en Afrique citoyen bi nekk Idaho ci village bu gën a ndaw mm-hmm. on lui rend sur les quelque dollars yi mu ciy dugal ban hôpital la tabax Sénégal ban yoon la defar au Mali ak yooyu donc rapport yooyu la ñu war a am ak suñu état et loolu li koy indi nag mooy ñun citoyens yi nañu gën a farlu sur la question des inondations la mm-hmm. du assemblée nationale moo koy régler ça c'est clair mm-hmm. mais il faut que nu on soit exigeants et que ñun Y'en a am taxawaay bi ñu ciy am du ko bàyyi mu jàll milliards des Sénégalais et que tey des inondations et que ñu bëgg ñu de dix milliards yu ñëwaat pour xawma taf yëngal ça ne passera pas. Mm-hmm. mbënd mi aussi euh, Sané dafa wone benn aspect par rapport aussi euh, rigueur yi euh, liggéeykat yi fii au niveau de du Sénégal fekkee mun naa ko waxee noonu parce que dañoo gis ne autoroute à péage moom dafa rester intact ñu gis ne toutes les routes nationales dañoo dañoo dagg loolu lu muy fii dafa mel ni comme sénégalais bi ñu ko dénkee liggéey aussi du ko def comme tubaab bi ni ñu koy defee. man bu ma la dénkee liggéey en tant que responsable du travail que tu fais je m'assure à ce que tu fasses le travail. mais encore une fois mais est-ce qu'on on a toujours besoin derrière euh, être derrière quelqu'un pour mu exécuter aussi liggéey attends quand tu mets autant de milliards un état tu mets autant de milliards euh, sur des programmes nga jël ay sénégalais du Macky Sall moom mooy dem pour xool yoon yi est-ce que ñu ngi koy defar mais y des gens qui ont qui sont des ingénieurs qui ont été portés à la tête de direction qui ont des responsabilités pour que les travaux les travaux se fassent comme ils se donc tey est-ce que benn a bu jógee di xeex tax joxuñ euh, travaux yi nga xam ne ñoom nekk les nationaux. Hmm. Euh, du du du nekk benn mbir boo aussi euh, boo xam ne dafay ëllëm xele askan yi bu ñu gisee ne carrément tubaab bi bi ñu ko joxee ñoom ñu liggéey ko correctement parce que dañuy gis ne édifice yi nga xam ne depuis 1960 yi ñoo ko fi avancées fait au savoir-faire sénégalais am na ay njublang tubaab. mais manque de rigueur bi la gars yi di y a des sénégalais qui ont du métier on voit des sénégalais yu nekk dans le BTP yu nekk ci yenn domaines yi il faut un excellent boulot di gagner ay marchés au-delà du Sénégal un peu partout. mais sénégalais yi li ñu fi tabax yëpp bu bu bu wisee mu inondé de. pour man ce qui est important c'est que l'État du Sénégal. le président Macky Sall et son gouvernement mmh. à qui les Sénégalais ont confié les, la destinée de ce pays-là mhm. bu ñu jëlee autant de milliards du contribuable sénégalais mhm. ñu war ko dugal ci ay projets na doon d'abord des projets qui son des priorités des Sénégalais ça c'est important mhm. la question des priorités mais bu demee ba mu doon priorité pour Sénégalais c'est l'État qui doit veiller à ce que le travail il se fait comme si il se doit ku ñu jox liggéey ngay national wala ngay tubaab bu dee defoo ko ni ci war l'État a les moyens de pouvoir sévir point loolu jarul débat loolu c'est pas y'en a marre de le régler. d'accord loolu c'est l'état c'est un état sérieux d'abord qui est sérieux dans l'attribution des marchés. Mhm. mais boo jëlee on a un marché de combien de milliards pour faire des routes. ngeen mu doon marché yaa ma neex déjà ki nga ko jox ni nga ko ko war a joxee du yoon. Mhm. y a la surfacturation y a du mais parfois ne serait resque ni ñuy piloter mal gouvernance su yenn projets yi day impacter sur la qualité des travaux qui son qui sont qui sont en fait qui sont livrés. Mhm. loolu tamit dëgg la surfacturation bu amee. yenn yu ñu war a dugal sur des choses qui sont bien ngeen di ñëb ñëbal di taaba taaba di dugg gënal nit ñi di ci enrichir et après il reste des miettes pour exécuter un travail. mais attends mënul baax y a aussi du ça. d'accord Sané euh, ñu wax euh, par rapport ak sortie Ousmane.